loolu daf leen a taxaw bil jërëmi ci jëmm ji ne leen taxalaa kawe na waxalaate mu kawe ba tey yàlla wuute naa mbindeef ci moom nekkul xarab xarab mooy loo xam ne mënta taxaw jonn moom rek faaw day fekk jëmm mu taq ca moo tax mu ne alxarab xarab shay'un mbir la mbaa dara la laysa dastiqlaalin lool déet muy boroomuk temm ma déet muy boroomuk mën a taxaw jonn bi nafsi ak boppam qataan ci lu dog mooy ci lu amul werante bila ishkaalin ci lu dul lënt alxarab mooy safaanub aljirmu aljirmu mooy jëmm ji la léng alxarab mooy loo xam ne faaw day fekk jëmm rek mu taq ca waaye mënta taxaw moom dong taxaw jonn di ki yëngatu ak dal wala xiif wala mar wala nelaw wala yeewu wala gudd wala gàtt wala dajaloo wala teqalikoo yu bare bari yoo xam ne yàlla rek xam niñu toll mu yoo xam ne mënuñoo baru dañu fekk jëmm rek ñu taq ca yooyu ñoo tudd xarab ba yàlla nag kon du jëmm ji ne leen du xarab ba du taq ci jëmm ji ne leen yaara ngoog yoo xam ne lu ci yàlla defoon rek daal di yemoonteeg mbindeef wa an yakkoona ak bu nekkee mbaa soo bindee aw an yakkoona wala mu nekk moom yàlla jàlla màgg na fil jihaati ci wàll yi lil jërmi ñeel jëmm ju ne léñ wax yooyu ñoom sittatun juróom benn lañu sataati yooyu xasat nañoo dikk fawqu fawqu bii firi kaw wa taxtu ak taxtu bii firi suuf wa amaamu ak amaamu bii firi një maanaam kanam wa sinaalu ak sinaalu bii firi càmmooñ wa xalfu ak xalfu bii firi gannaaw wala yamiinu ak yamiin bii firi ndeyjoor laatan sa bul fàtte almitaala misaal ma ñetteel bi mooy danay wax ne yàlla kat amut juróom benn wàll yi nga xam ne jëmm ju ne léngu ju ne amee na ko mooy kaw ak suuf kanam ak gannaaw ndeyjoor ak càmmooñ jëmm ju ne léngu ju ne amee na juróom benn yooyu yàlla nag bu ci amee woon lenn lenn daal di yemoonteeg mbindeef kon yàlla amut juróom benn yooyu le aw an takkoona wala bu nekkee jihatun ak wàll lëxoo di ko ñeel kama kaanat naka mu nekkee lanaa di lu ñeel subhaana faatiri sama tudd naa selluk aji bind asamaan mbindeef foo ko fekk day am wet goo xam ne ca la féete yàlla na moom amul genn wet goo xam ne ca la féete kon yàlla wéete naag mbindeef ci amul genn wet bu féete soo ko féetalee ci genn wet rek mu daal di yemoonteeg mbindeef kon yent ngoog ci fukk yi ngay wàññi aw an yekkoona wala bu nekkee moom yàlla jàll màgg na za taqayudin di boroomuk tënku bi zamanin ci jamono aw bi makaanin wala ci béréb fexte di na nga jub juróomeel mooy nga ne yàlla tënkuwul ci jenn jamono mooy yàlla amul jamono tekke ne ba tey yàlla amul barab yàlla moo sàkk jamono moo sàkk barab ba mu sàkkagul jamono barab nag na melan rek la mel ba tey kon juróom benn ñu ni yoo xam ne yàlla wóote na ci ak mbindeef aw an yekkoona wala bu nekkee zaatuhu jëmmum ja muttasifatan di aji melowu dikkal xawaadisi ci ni ci way sos yi fakku nekkal daa maarifat di boroomu xam juróom-ñaareel mooy nga ne yépp melowoo xam ne rek mbindeef dana ko di melowoo moom yàlla du ko melowoo mbindeef da nga ko di gis lu amee ci xeeti couleur yi benn ni ki ñuul mbaa weex mbaa leneen da nga di gis mbindeef muy gudd wala muy gàtt wala muy digg doomu ak mboolem xeeti melo yi nga xam mbindeef di ko melowoo rek jomb na ci yàlla su ci yàlla meloon lenn rek daal di yemante mbindeef kon juróom yaara ngoo ko aw an yàkkoona wala bu nekkee dul jëlaali borom màgg gi muttasifan di aji melowoo bi sixari ci ak tuuti subhanahu sorelal naa ko lépp néewul ci moom aw bil kibari wala ci ak rëy kamit li baroosin ni ki kem aw fel wa darratin aku sangaleeñ wama ak loo xam ne wusima mandargaaleef na ko bil fiili ci aw ñay aw bil karkadaan yi wala ci karkadaan juróom-ñetteel mooy da ngay wax ne yàlla kenn du wax ne dafa tuuti niki sangaleeñ mbaa aw fel mbaa leneen lu tuuti muy juróom-ñett nga ne itam yàlla kenn du wax ne dafa rëy niki aw ñay wala rab yi ñuy wax karkadaan mbaa leneen lu rëy kon nag yàlla tuutiwut rëyut bu tuuti woon baa mu rëy rek daal di yam ak mbindeef aw kaana wala mu nekk moom yàlla dat di saafin di boroomu melowoo bil axraabi ci ay xeemanteef fil fi'li ca jëf ja wal xukmi ak atte bila xilaafin ci lu benn wute bii moo fukkeel ci yi nga xam ne loo ci féetale yàlla rek dal nga ko yemaleeg mbindeef bii nag mooy yàlla di tëral benn àtte am ca bëgg-bëgg bu mu cay dabu wala muy jëf jenn jëf am ca xemanteef bëgg-bëgg bu mu cay dabu déedéet yàlla àtte bi muy tëral mbaa jëf bi muy jëf ci coobareem rek ak kàttanam la tërali àtte ba la jëfe-jëf ji waaye amul benn xemanteef mbaa benn bëgg-bëgg boo xam ne moo tax muy tëral àtte ba mbaa muy jëf-jëf ja ndax doon xaqiqatul xaraw bi dëgg-dëggi xemum teef fil fasaadi mbir mu mu nekk ci yàqu wujoodu baaxisin moo di amuk aj yan xalaa ijaadi fiilin ci amal jëf minal asxaali ci jëf ya aw xukmi wala ab àtte jalaa bu feeñ na min kulli xukmi sharhi ci bépp àtte bi yoon nil ta yàlla na nga am al amala mébét ma al xarab ne buñ ko dee wax ci wàllu yàlla wax ji yàqu lay doon mooy jàngale rek la waaye amul mukk ci wàllu yàlla alxarab mooy jëmm ji jëf jëmu jëf mbaa bu dee koy tëral ab àtte mu am xemmam teef boo xam ne moom la cay dabu moo ko taxa jëf-jëf jë mbaa moo ko taxa tëral àtte boobee yàlla moom amul benn xemanteef boo xam ne moom lay dabu ci jëf ji muy jëf mbaa atte ba muy tëral mbindeef nag moom bu fekkee mi ngi ànd ak sagoom li ci ëpp jëf ji muy jëf nekkut lu mu cay dabu bu dee atte bu mu tëral it noonu nekkut lu mu xemeem ba di ko ca séentu waxal ka saa niki nii istaxaala jomb na duuna labsin ci lu lënt allah yakkoona mu bañ a nekk moom yàlla xaa iman di aji taxaw bi nafsi ak jëmi boppam yoo jublu rek doylu ci boppam bi an yakkoona ci bu nekkee sifatan di aw melo taquumu aw dana taxaw bil maxalli ci jëmm aw suxi la wala soxlaaleef ko moom yàlla ilaa mu xassisin jëm ci aji amal bokk na ci meloy jomb ci yàlla ñàkk a doylu ci boppam da nga ne woon yàlla daa doylu ci boppam aajowul kenn mbaa lenn mbaa fenn kon nag yàlla nekk jëmm ji ne lenn daal di aajowoo ku ko sàkk tey toppatoo mbiram tax boo ne jëmm ji ne lenn la rek kon dafa sosu te du mën a ñàkk ku ko sos koo xam ne mooy saytu mbiram ba tey yàlla it du melawu tax jëm muy xaral ba nga weesu woon ndax bu nekkoon xarab faaw rek mu aajowoo jëmm ji mu taq ndax nee nga woon xarab mooy melo woo xam ne mënta taxaw jonn faaw day am jëmm ji mu taq kon nag di ne yàlla doyul na ci boppam mooy rek nekkul jëmm ji ne léegi nekkul xarab yaar yaar yooyu foo leen fekk rek mbindeef lañu te jëmm ji ne léegi faaw mu aajowoo jëm ci ka ko sos amal ko xarab bi it faaw mu aajowoo jëmu jëmuy taq tu mastaxaala topp jomb na xalihi ci moom yàlla aydan ba tey allah yekkoona mu bañ a nekk waaxidan di kenn taxalaa kawe na bi an yekkoona ci bu nekkee moom yàlla jàlla màgg na mu rakkaban di lu ñu toggale maanaam di lu ñu composé fi zaati jëmm ja uxsuban na nga lim aw fi sifaatihi wala ci meloom ya alxulaa yedi way kawe aw an yekkoona wala bu nekkee loxoo di ko ñeel juutamaa sulin boroomu ko yemoonte loxoo ñeel ko fi zaatihi ci jëmmam ja aw fi sifaatihi wala ci meloom ya nee na yàlla ñàkk wóot ci jëmmam mbaa ci meloom jomb na loolu nag ñaari anam la moom lay bëgg wax fa awwalut aji jëkk ka an takkoona mu ngi mel ne bu nekkee lixu di ko ñeel qudrataan yaari kàttan xul waxal aw ilmaani wala ñaari xam-xam aw iraadataani wala ñaari coobare loolu mooy benn bi ñàkk wéet gi mën naa feeñe ci melo yi nga xam ne moo di ay meloom limu kàttan bañu nekk genn kàttan di ay kàttan niki ñaar mbaalu ko ëpp xam-xamam bañu nekk benn xam-xam xanaa ñu toggale ko boole ñaari xam-xam wala ñaari coobare mu yooyu ji des nag mooy waxtaani ñaareel bi antakkoona moo di bu nekkee daatuhoo jëmmam ja allot yi da nga xam ne taqaddasat sell na tushbihu di niru daatan jeneen jëmm jalat jot feeñ na ba tey boo ne jëmm yàlla ji am na jenn jëmm jum muróonteel rawantele nga naa am na jenn jëmm jum yemoonteel rek su boobaa kon dàq nga wóotul yàlla ga ci jëmmam te kon dal nga ko yemaleeg mbindéef kon ñàkk wóotul yàlla mën naa feeñ ci ñaari anam jëmmam ji am yeneen jëmm jum yemoonteel mbaa ju ko nuru muy benn ñaareel bi mooy melowu melowoo melowu ci ne bañ a doon benn xanaa di yaar ñu boole ko jox ko mbaa yet mbaa yent ñu boole ko jox ko ba lépp tuddi ko nag aw melo ki tudde ko xam-xam mbaa tudde ko kàttan mbaa tudde ko coobare aw an yekkoona wala bu nekkee maaxoo di ànd ak moom mu aftirun aji jeexital fii ay fi'lin ci bu mu ci jëf yan suru kon dana ko dimbale fi mu jóodi ci mbindeef wala ci amul mbindeef ay li mu ci namm laa yakunu du nekk fi'lu shay'in def dara lil wara di ñeel mbindeef wala tasarrufun du caageenuk soppandiku fa saaxib na nga àndaaleeg man ka nga xam ne dara xam na mbindeef amut jenn jëf mbaa gennuk soppandiku fi nafsiha ci boppam aw xëyriha wala lu dul moom ba li fi nekk kulluma lépp loo xam ne siwahu du moom yàlla faxoo moom sunxoxoo jëfama laa taxi man bul defle dañu ne sunu boroom dafa wóot ci jëf moom lay leeral ne jomb na am leneen lu bokkut ak yàlla lu mën a def jenn jeexit lu mu tuuti tuuti lu jëf tuuti tuuti ak lu mu réeréer fi sa bët ñëwee moom lépp rek yàlla amul kenn koo xam ne mën naa jeexital ci dara lu may yàlla mbindeef mënta def dara mënta soppandiku ci dara mbindeef mënta sax soppandiku ci jëmmi boppam ji rawante na leneen ci gàttal sax ne mën nga ne lu bokkute yàlla rek jëfi yàlla lu bokkute yàlla jëfi yàlla rek mu daldi gàtt summa yastaxyilu topp dana jomb xaluhi ci moom yàlla jàlla màgg na alxaji su lot an mum kii ni walis mbindeef maa mu man di doon yaa nabiilu yow aji xellu ji da nga ne woon yàlla dafa amee qudratun kàttan maanaam man lépp lépp tëluwul dara dara kon nag yàlla tële ci loo xam ne mën naa am loolu jomb na lu mën a am wële rek yàlla mën na ko alxaaji sulot xadduhoo dëgg-dëggam bi xawli cheikhina ci waxu sunu sëriñ taxaburul ijaadi mooy gàntaluk amal ga fiimaa ci la nga xam ne am kana jàppandi na amal lës yi ndaal la nga xam ne lam yekku nekkut mum ki nan di aji mën a am mooy di aji jàppandi falaa yu duxaa defu ko wooyee bihi ci moom ka mustaxilin niki aji jomb fànqilan na nga xellu bu ñu nee yàlla lott ci dara jomb na ci moom dañ cee jublu rek lott ci lu mën a am te moom mënu ko loolu mooy ak lott waaye loo xam daa jomb mënta am moom tëli koo def du lott ndax seetlu ne lu jomb mooy lu mënta am loole nag boo nee yàlla mën na ko kon la nga waxal ne daa jomb nekkatul lu jomb soppiku na lu mën a am kon tële lu jomb du tële tële kay mooy loo xam ne mën naa am jombut mu ñàkk koo mën nag loolu moo di ak tële waxee ko saaliki ni ijaabu shay'in amal dara fi lu waraa ci mbindeef yi di kur yi ànd ko sibam li ma ñeel li nga xam ne jaraa daw na bi daati yi ci jëmam ja ay na mu ci namm lam yekkun nekkutoon daa iraadatin di boromuk namm li zaaka ñeel loole dal li fi nekk laa yekkoonu bu nekk mooy du am xawrumaa ludul la nga xam ne araadahoo namm na ko ba tey da nga ne woon yàlla amee na iraadatu coobare maanaam lépp lu muy def ci coobareem la koy defee du amit lu ko rëcc mbaa lu tombe rek am lu am rek ci coobareem la mu ne kon nag dara am loo xam ne yàlla waru ko woon du coobareem loolu jomb na lu am lu ne rek ci coobareem la aw ànd wala naka moom xasala am na maxas jufóoli ànd ko gëlëm aw xafala wala mu sàggan aw kaana wala mu nekk bi taalili ci xilla bi taalili ci jeexitalu xilla bi ñuy firee sabab aw tabain wala tabaxu bi ñuy firee jikko tudd na ci yooyu yent yoo xam ne jomb na ci ni yàlla amale jëfam ndax lu ci amoon ci yent yi rek coobar ji nga waxoon day fa jóg yent yi mooy al duhóolu al xaflatu at taalilu ak tabon taalil bu la neexee tudde ko al illatu bu firil li nag yent yooyu xaddu jiwóoli dëgg-dëggi jiwóol ñu koy firee gëlëm ay yeex yi ba moo di bu fàddoo amrun mbir sabaqaxoo moom jiitu woon na ko xëy mun ak xam ataaka yàlla la dikkal ak nasru ndimbal la ak jiwóolu ñu koy firee ngëlëmte dañ cee jublu rekk xam dara ba noppi mu wëlbatiku réer la mër mër mel ne xamatoo ko woon mel ni mosoo koo xam daal loolu nag bu doon dal sunu boroom ñu wax ne kon du jëfe ci coobareem ndax kon mën naa xam mbir nam na koo defee nam ko xamee xam-xam boobee réer ko mër nga xam ne du ko mën a defe noona jomb na ci yàlla ndax day wane rek ak ñàkk coobare xaqiqatul xaflati dëgg-dëggi càggante an tatruka moo di nga bàyyi maa la nga xam ne arabtaxoo namoon nga ko bila shuhurin ci dul ak yëg waxaman ci defle alxaflatu càggante jomb na ci yàlla moo di mu nar mbir ba noppi jekki-jekki bàyyi lam naroon téegul sax ne bàyyi na ko mu def moom loolu dana koy dal am lu mu namm jëm ci muy coobareem waaye nag deful loola leneen la def te yëgul ne sax bàyyi na loo mu njëkkoon a nar loo mu njëkkoon a jublu loolu nag jom na ci yàlla yàlla moom bu namm mbir ba noppi wëlbatiku bàyyi lam namoon ci lu dul mu yëg ne bàyyi na ko loolu moo tudd alxafalatu xaqiqatul illati dëgg-dëgg al xillatu dañuy firee xilla wala sabab duuna chekk njëfu sikki sàkk ay yata atta moo di bu jamtaloo al fi lu jëf ja duuna tarkintul ak bàyyi wala loxoo dédd ko ñeel tawaqufun ak taxaw xalaawu jeedi chartin ci am chart wala ntifaayi maanihim du jaageenu dàqub jenn aji tere mu fiidu te gën a jariñ alxillatu moom mooy li nga xamee ne rek mooy sabab si su amee rek la cay juddoo daal di am fa saasa te luñ jekki di wax naa gannaaw bu sabab si amee muy xilla ji da nangam am di ab sart dolli ko ca mbaa bu fa nangam nekk kat datee koo am yooyu yëpp du ci am moom moom daal bu xilla ji amee muy sabab si rek la cay juddoo daal di am mu jox la ci misaal ka misli tahrikin ni ki kon ak yëngal li xaatamin ñeen ab jaaro bi nisbatin ci askan ila tahriki asboin jëm ci yëngal baaraam faqis na nga xiyaas day misaal alximatu mu ne la mi ngi mel ne jaaro bi nekk ci baaraam bi saa yu baaraam bi yëngatoo rek faaw mu yëngalaale jaaro ba nga xam ne yëngutub jaaro ba mu ngi juddoo ci yëngutub baaraam bi mel ne su baaraam bi yëngutoo rek faaw jaaro bi yëngatu te doo wax ne gannaaw bu baaraam bi yëngutoo kat la fa nangam nekk mbaa bu fa nangam nekk jaaro bi door a yëngatu déedéet moom kay yëngutub baaraam bi rek mooy sabab si nga xam ne mooy tax jaaro bi yëngatu du amaat nag nga naa na fa nangam nekk boole ja mbaa bu fa nangam nekk boole ja alañ la nag amul jeexit yàlla rek mu ne moo koy def ci kaw coobareem waaye bu fekkoon ne da nga ne alañ letu sabab am na jeexit nga xam ne su sabab si amee rek looy juddoo ci sabab sa faaw mu am mel na nga ne yàlla moom bi mu xasee sàkk xen la ni sabab si moom amatul coobare ci looy juddoo ca sabab si ndax bu xen la muy sabab si amee rek da ca juddoo daal di am du ca mën dara loolu wute naag pas-pasu gëm bu sell sell lépp rek ci coobare yàlla lay amee moo sàkk sabab waaye moo sàkk itam lay juddoo ca sabab sa te lu ci nekk ci coobaram rek lay amee xaqiqatu tabaxi dëgg-dëggi jikko te ak til fiyan li mooy jamtalub jëf ja min duuni tarkihi ci lul ak bàyyeem di xawlil faxli ci waxi kóola wa yatawaqafu dana taxaw nag xalaa wujjoodi shartin ci amuk sart wantifaa imaanihin ak dàqoog aji tere id yoo tabaru ba def na ko xalam ka mislil ixraaqi ni ki kem lakk ga bu nisbatin ci askan ila naarin jëm ci sawara tobaa ni ki nii mattalaxoo la ko misaale man ka nga xam ne xadd xalaa wéy na ab tabax nag daa wuteeg alaylatu ab tabax mooy li nga xamee ne boo dee xool ci sa bët day mel ne jeexit sàngam ci moom lay bàyyi ko waaye nag moom da nga cay boole ne balaa jeexit joojee bàyyi ko ci moom kat nangam dafay nekk te nangam dañ faa nekk ni ki sawara boo dee xool day mel ne am na jeexitu lakk boo dee xool ci saaxi day mel ne sawara am na ak mën a lakk waaye nag sawara balaa mën a lakk da nga cay sartaale mu am lu mu lakk bu fekk amul lu mu lakk du lakk nga doole ca itam dara bañ a dox diggante mag lakk loolee ndax bu fekkee am na lu mu lakk waaye am na lu dox diggante mag moom it du ko mën a lakk loolu mooy ab taboo ab taboo nag amul jeexit bul defee ne sawara bu xasee am lu mu lakk te dara doxul diggante nag moom faaw mu lakk ko mu neex yàlla ak mu bañ a neex yàlla déedéet yàlla moo sàkk sawara waaye moom yàlla ci boppam ba tey mooy lakk sawara du lakk ndax sawara mën naa am lu mu lakk ba noppi te gisuñu ci zaahir muy tee mu lakk loola te du ko lakk ni ki sunu maam ibrahim ba ñu taalee sawara ba nga xam ne picc yi naaw di ko tiim sax dañuy daanu dee gis nga ne dañ ko ci dugalee ci zaahir sawara am na lu mu lakk dara doxul diggante mu lakk ko te taxut mu lakk ko kon tegtal la ci ne yàlla moom moo sàkk jenn jëmm ju ne te itam moom rek mooy jeexital jëmm ja di jeexital daa tolloog nag jeexit ja day feeñe ci jëmm ja ndax boo soxlaa lu mel noona daal di wax wuti jëmm ja yàlla nag defal la loolee nga bëgg mu feeñe ca jëmm ja waxee ko saa ni ki nii al jahlu réer yastaxiil dana jomb alayhi ci moom yàlla wa kullu ma ak lépp loo xam ne tàggat yi dana ko xame alxuqoolu xel yi bi ma anaahu ci maanaam réer ka fekk ni ki sikki sàkka wal wax mi akuk defe wakat tafakkuri ak ni ki xalaat wàññin ak njort wanis yaanin akuk fàtte waa ilmi nazari ak xam-xamu setantal dañ ne woon yàlla ca melay mat ya amee na xam-xam boo xam ne ëmplewul dara lépp la xam te leen lu ne na mu doone la ko xamee mu ne kon nag li ñuy wax réer umpale dara jomb na ci moom lépp loo xam ne rek day wut ak réer sax mel ne sikki sàkka wala defe wala xalaat xalaat ku xamut moo koy def wala jortu wala fàtte wala seetantal ngir bëgg a xam yooyu yépp ak yu leen nuru jomb na ci sunu boroom wa yastaxiilu dana jomb almawtu dee ayban ba tey wa samamun ak tax fi xaq yi ci àqam tumal xamaa topp ngumba tumal bëkkamu topp luul dañoo waxoon ca meloy mat ya ne yàlla amee na dégg ga yàlla ca moom ak gis ba yàlla ca moom ak wax ga yàlla ca moom kon kon yàlla meloo seeni safaan amee ak tax wala ak ngumba wala ak luul jomb na ci moom ab daadu maanawiyatin safaani maanawiya li rabbina ñeel sunu boroom waadixatun aji leere la min haadihi ci yile ku nekkal fatinan di aji xellu ba muy tudd meloy mat ya dafa waxal juróom ñaari melo tudd almahaani te mooy alqudratu al iraadatu al ilmu al xayaatu al zamhu al basaru al kalaamu bi muy wax yi nga xam ne ñooy melay jomb ci yàlla mu daldi wax safaani yooyu te moo di alxajisu alkaraahatu aljahlu almawtu alsamamu alxama albakam mu ne nag ñu tàmbalee alxajisu alkaraahatu ba ci albakam mu juróom yaar yooyu moom mën ngaa génne seeni maanawiya muy lu yomb yomb maanaam alxajisu moo jëmmi lotte gi jëmm ja ko làmboo mooy tudd alxaajisu alkaraahatu bi ñuy firi ak sib te jublu ci ñu forcé ko ba mu jëf mbaa la am daal moom neexu ko du ci coobareem nga wax alkaraahatu jëmm ja ko làmboo moo di alkaarihu aljahlu réer jëmm ja ko làmboo aljaahilu almawtu dee jëmm ja mu dal mbaa dana ko dal muy almayitu asama mu tax jëmm ja ko amee tudd al asammu aji tax alxamaa ngumba jëmm ja ko làmboo di al ama al bakkam lu jëmm ja ko làmboo di al ab kamu kon nag bay wàññi ñaar fukki melo yi nga xam ne ñoo jomb ci yàlla tey safaanu ya nga waxoon ne ñooy meloy mag ñoo mëntu ñàkk ci wàllu yàlla kon lii yaari juróom yaar la muy fukk ak ñeent nga boole ci nag juróom benn yi nga xam ne ñoo jiitu woon te mooy al adamu al xuduusu al fanaau al iftiqaaru at tamaatulu at taxaddudu muy ñaar fukki melo yi jomb ci sunu boroom subhanahu wa taala kon mu jàll ci li nga xam ne jaayis la ci wàllu yàlla kenn du ko waral ci moom kenn du ko jombal ci moom dañuy wax ne rek lépp ngi takku ci coobareem ak